YouTube bu Walfadjri yéenay choisir. Euh, benn maanaam dañoo fàtt fépp quoi. waaw fépp nañu fàtt euh, choix bi aussi lañ koy wéyale Moustapha yéen a doon laaj euh, benn date am ngeen ñaar le 24 ak le 31 yéenay choisir ban jour ngeen ci dem élection présidentielle. finalement le 24. <laughs> maam Birame a ngi wax léegi ma <laughs> ne ko analyse boobu aw ma ko ci woon mais defe naa mooy bi ci gën. le conseil constitutionnel xam nga démb dafa wax ne le 31 la ko fixé. Mhm. le 31 mars. Euh, Euh, le communiqué du conseil des ministre wax ne président de la république décidé na euh, fixé ko le 24 mars. ba sax nga gis ñenn ñi bëggoon ci porox ndollu naan crise am na. Euh, benn élection ñaari date gis nga benn am na ci presse boo xam ne noonu la ñu ko bindee. man j'ai bien aimé le titre de Walfadjri tey bi nga xam ne ñoom dañoo bind rek élection processus électoral c'est fini. effectivement c'est fini li gën a wane ne c'est fini mooy li ma maam Birame di wax léegi or antenne le conseil constitutionnel. tey jii mënoon nañoo xëy di xëccoo ak président de la république ñu naan conseil bi moo ne ci kaw parce que décidé na te décision kenn mënu ko attaqué c'est pas susceptible de recours lu ñu neex mais j'ai l'impression que li nga li ñu wax sànq moom la conseil constitutionnel def mooy fàtt fépp cest dire que dire au président de la république ok ñun nous avions choisi en tout cas loolu ci communiqué bi conseil constitutionnel ne écoutez mars mhm. pour pallier à une carence euh, de l'administration mhm. mais su fekkee ne yow mi nga xam ne yaa war a tànn date jël nga sa coobare tànn date convoqué le corps électoral mhm. mais xayrul alhamdulilah on va la euh, euh, faire la crise parce que en réalité Pape Makhtar heure bii bu ñu fekkoon ñu naan conseil constitutionnel def na communiqué ne par force le 31 lay am. Mhm. Macky Sall taxaw fële ne na décret convoqué le corps électoral le 24. ñu ne ci beneen crise journalistes yi commencé waxaat. Mhm. élections yi dañ koy dàqaat. Mhm. mais alhamdulilah bi ko conseil constitutionnel comprendre man en tout cas gis-gis boobu laa ci am. Mhm. communiqué bee ngi nii par décret numéro 2024 tiré 690 et 2024 tiré 691 du 6 euh, mars 2024 euh, notifié le même jour au conseil constitutionnel par euh, lettre numéro 504 slash PR slash SG le président de la a fixé la date de l'élection présidentielle. au dimanche 24 mars 2024 et convoquer le corps électoral à cet effet. Mhm. de la date de l'élection et euh, président de la République. Ainsi, le Conseil constitutionnel, comme indiqué dans sa décision numéro 6E, euh, 6/E/2024 2024 du 6 mars 2024, n'a exercé ses prérogatives que par substitution en vertu de son pouvoir de régulation, afin de pallier l'inertie de l'administration de satisfaire à l'exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral interrompu mmh. en vue de la tenue du scrutin avant le, avant la fin euh, du mandat présidentiel. Les décrets précités sont conformes à cette exigence. En conséquence, par application des décrets numéro 2024-690 et numéro 2024-691 euh, du 6 mars 2024 précité, le scrutin pour l'élection du président de la République se tiendra le 24 mars 2024 fait à le 7 mars 2024 le président Mamadou Badio Camara. <laughs> alors euh, débat bi mujjut a am euh, li ñu doon wax euh, mooy ay coow ci diggante wala sax crise institutionnelle Georges Nessa mais ñu delluwaat ci démb journée boo xamante ne vraiment chargé woon na ci actualité ñu commencé ko ci li nga xamante ne dañ ko doon voté mi loi bi nga xamante ne loi amnistie la finalement jàll na ba waa PDS langaamoo ci waa benn bokk yaakaar ñu mujj ko am bu ma juumul ak 94 voix contre une quarantaine waaw d'abord pour euh, <coughs> une petite précision par rapport ak euh, la date du 24 ak ak du 31 mm -hmm. je crois que la date du 24 man euh, dès le truc dès le début xamoon naa que le conseil constitutionnel euh, pas le conseil le conseil des ministres Macky avait déjà décidé de fixer la date le 24 te bi ma woowee kenn koo xam ne si ñoom la bokk qui était ku fekkee réunion conseil des ministres daf ne effectivement c'est la date lu leer instant yi mooy c'est la date du 24. Mhm. qui a été retenue par le par le président. et que Sidiki Kaba mooy jël la primature. Mhm. pour remplacer Amadou Ba pour lu permettre d'aller xaw ma lan. Euh, faire sa campagne faire sa campagne. bon certainement nag que le conseil constitutionnel n'était pas encore au courant de cette date-là officiellement. il n'était pas encore saisi parce que dañ ko war a saisir cette date-là moo tax ñoom tamit nous proposer la date. de dimanche 31 31 mars parce que c'était le c'est le dernier dimanche de de, de truc avant la fin du mandat du président de la République bi nga xam ne le lay jeex donc il fallait trouver un dimanche mm-hmm. te boo jël woon la date de ce dimanche là c'était une façon de dire au président maintenant on est dos au mur amatuñu fu ñu jëm mm-hmm. parce que boo weesoo cette date de 31 bi nga xam ne dimanche la oui nga organiser bokk élection bi un jour ordinaire bi nga xam ne d koy décréter férié chômé et payé ça peut donc euh, là je crois que heureusement mm -hmm. heureusement bon euh, ils ont pu trouver en tout cas la bonne formule oui. et ils ont reconnu en même temps que président de la République moo am prérogative fixée euh, c'est la date de l'élection d'accord tout comme aussi moo am prérogative euh, convoquer euh, le corps électoral Euh, Dieu merci ñëpp mhm. déggoo nañu donc yaakaar naa li nga xam ne dañ ko doon re dañ ko doon euh, exiger depuis longtemps boo nee la ñaar date yi leen bu leen si neex. Mhm. loolu daal buñ si buñ si tànn rek baax na. d'accord bon hier na il s'est passé quelque chose boo xam ne man boo euh, véritablement man dem si am gàcce mais dem si dem si mer tellement que parce que j'ai vu que les gens n'ont pas pris au sérieux en tout cas les députés n'ont pas pris au sérieux ce qui s'est passé hier mhm. parce que boo gisee ñoom nu ñu ñëwee si euh, seen euh, vote vote boobu. à l' assemblée. oui euh, kenn munu leen xamee. Mhm. kenn mënu leen xamee de par leur discours. Mhm. parce que c' des gens yoo xam ne. dañoo jékki-jékki changé complètement ñi nga xam ne noo doon attiser le feu pendant de depuis mars euh, mille vingt et ba léegi oui avec des discours violents mm avec des invectives mm-hmm. euh, jël Pastef vraiment voué ko au Gémini teg ko ba parti boo xam ne c'est un parti de terroriste mm-hmm. ñooñu ñooy jëw démb à l'Assemblée nationale indi un discours d'imam nga yaakaar ne ay ñoom ñëpp ay imam lañu ku wax daal nga yaakaar ne ku wax tari aaya ku wax tarixa yi jëm jëm si yàlla di ñu jéem a dox suñu moyen alors que loolu c'était pas c'était pas c'était pas on les attendait mhm. ñu leen doon wax mooy que ñoom ñëpp ñu jóg ne sénégalais lu ñu bëgg d'abord sénégalais bëgg nañu baale. oui loolu yaakaar naa sax loolu nga nekk politique loolu yàllaa ko wax nit ñi dafa war a baale. Mhm. buñ ko faw balaa ngay baal nit ki lu mu la tooñ. nga wax ko lii lii leen jotee. donc les sénégalais dañu bëggoon xam d'abord la vérité dans cette affaire-là. qu'est-ce mhm. qui s'est qui a fait quoi et pourquoi il l'a fait. loolu je crois que c'était l'essentiel parce que loolu la ñuy njëkkee dans le cadre d'une amnistie mhm. amnistie yi fi xew yëpp amul benn boo xam ne dañoo xëy rek ne baal na leen dañuy effacer lépp lu fi xew il y a eu des veri il y a eu la vérité il y a eu la justice ñooñu ñu tëj leen mhm. ñu def ñu tëj leen ñu defu ñu bàyyi leen foofu lañ leen xaare te loolu je crois que c'est essentiel dans le cadre d'une amnistie parce que boo ko defulee c'est un précédent dangereux dangereux parce que ëllëg si biir dans deux ans dans trois ans ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo def mën mënuñ jàpp que ne ah lii daal buñ ko defaatee tamit dara du si génn. Mm-hmm. dara du si génn mën nañu mën nañu mujj si amnistie alors que ñi nga xam ne ñoo si faatu on parle de soixante et quelques personnes ils sont pas tous forcément du du du PS wala de du de réew mi de Pastef wala de réew mi wala quelque chose comme ça en tout cas duñu sax ay hommes politiques wala des femmes politiques. dañ leen a tooñ peut-être bon am na ñoo xam ne dañ jóge woon seen bérébu liggéeykaay di dem ñu boom leen entre temps je prends juste l'exemple du gosse là bu dëkk bu ñu bu ñu bu ñu rey au Parcelles Assainies euh, ensuite Wade Wade Cheikh Cheikh Wade ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen alal peut-être ils n'ont rien à voir tous avec la politique aussi ay jàmbur lañu si politique c'est des Sénégalais donc ñooñu ñi nga xam ne tamit dañu perdre seen emploi les les soixante et une stations d'essence yi nga xam ne dañ leen a saccagé ñooñu aussi c'est pas des hommes politiques peut-être qu'ils n'ont rien à avec les partis waa loolu yëpp nag ngeen bëgg xëyee comme ça kenn xamul ngeen ne de da ngeen koy fatte par force da ngeen koy fàtte Sénégalais yi les 18 millions vont oublier sax démb laa la wax ni amul yàpp boo doon def un sondage tu ne trouveras pas mille Sénégalais wala deux mille Sénégalais yi nga xam ne dañ la ne waaw lii de c'est une bonne loi c'est une loi injuste très injuste d'ailleurs et puis man li ma si gën a métti c'est qu'on est on a tellement politisé cette affaire là parce que dañu dañ ko jéem a def un link entre génne Ousmane Sonko ak l'amnistie te ñu ko doon wax démb da nga doon dégg naan képp ku votewul loi bi danga nga bëggul Ousmane Sonko génne de prison pourtant ça n'a rien à voir parce que Ousmane Sonko lu lu ko yóbbu euh, en prison mais gars yi xam nañ ko mënoon nañ ko génne sans pour autant mu passer par une loi d'amnistie la preuve c'est qu'on a Euh, des des centaines de détenus yoo xam ne on n'a pas cherché à mettre en procès ou quelque chose comme ça. du tout et j'ai aimé quand même euh, l'intervention d'un député hier je crois c'est un député du PUR bu doon wax ne bu ñu jàppee il a évoqué le cas de Serigne Moustapha bu ñu ko jàppee di naan dañ lay génnee ay ay par ay njuuj njaaj daf la ne déet man kay ki ma dugal fii par njuuj njaaj mën na defaat njuuj njaaj boobu bu génnee ma si. Mm-hmm. donc de la même manière qu'on a envoyé ces gens-là en prison sans dé sans sans truc majeur. sans des des des, des preuves claires mënoon nañ leen génne aussi par des preuves claires mieux ou pire euh, li ñu leen jiiñ ba yóbbu leen kaso c'est extrêmement sérieux extrêmement grave on les a taxés de terroristes on a parlé de force occultes on a parlé de rebelles venus de de de du MFDC avec des kalachnikovs je vais citer le cas de nak Naka Kabiline Diatta je crois. Mhm. ak yeneen ñi nga xam ne dañ leen ne ñii dañ doon fabriquer ay cocktail molotov et tout ça. ak ak i gàddu wala lance roquette ak lance roquette. loolu nga xëy loolu yëpp nga bàyyi ko si biir donc tous ces terroristes là ces milliers de terroristes comme on dit entre guillemets sont devenus euh, voilà se pavanent maintenant peu, peuvent en tout cas commencer à pavaner dans la ville dans quelques semaines peut-être donc ça c'est extrêmement grave te loolu donc kenn kenn kenn kenn kenn n'a pas cherché en tout cas parmi les députés peu de gens se sont levés pour dire nous exigeons la vérité alors qu'on devait commencer par ça si nañu wax euh, au nom du pardon et pourtant euh, li si jaaxal ñu bëri mooy que balaa ngay pardonner sax au moins ñu situer les responsabilités mais mi ngi mel ni euh, su ñàkk situer les responsabilités dafa nekk une habitude vraiment sénégalaise chaque coup drame bu am rek dañuy fàtte jàll ci leneen mais situer les responsabilités ba bu ñu waree daan ñenn ñi sax loolu dafa mel ni bokk suñu ay habitude waaw xam nga Pape Matar man dama jàpp ne conseil constitutionnel bu doon dañu yem ci décision bi rek maanaam am si bii ñu voté démb. Mhm. ñu def voté woon ko fan yële si ginnaaw. wala ñu mhm. koy waaj a voté. Euh, euh, di nga jàpp ne ak décision conseil conseil constitutionnel bi dañuy ne fin de la récréation. Mhm. maanaam na tappale yi jeex. li tax mënoo ko wax à partir de démb mooy effectivement loi d'amnistie bi nga xamante ne nii. ñaaxaale nañ ko ci actualité bi nga xamante ne nii daanaka moom lañ doon waxtaanee ngoon gi yëpp. Euh, loi d'amnistie boobu problème bi nga xamante ne nii njëkk na cee am. parce que euh, bu ñu nee la loi es générale impersonnelle. Mhm. maanaam nit warul tax ñu tëgg ab loi. Mhm. léegi yow naka nga mën a comprendre ñoom ñu def seen euh, projet de loi gouvernement bi ci exposé des motifs bi dernier paragraphe bi nekk le présent projet de loi permettra à des personnes privées de leurs droits mhm. civiques et politiques d'être rétablies dans leurs droits. loolu kan la dal fii Sénégal koo xamante ne nii dañu jàpp ne ay droit am amatu ko ba mën a bokk ci ay élection hmm. ci diggante 2021 nous sommes 10 17 millions kenn laa ci xam ci de Sénégalais yëpp kenn la muy Ousmane Sonko hmm. ce qui veut dire que bi ñoom dañ koy bind taayee ko ala maanaam ci Ousmane Sonko mi nga xamante ne nii jàpp nañu ne loi bi moo ko war a setalaat ba mu jotaat ci ay droit am hmm. mais loolu ci exposé de motifs bi la boo yeggee ci biir te démb yaakaar naa doon naa ko fi wax. Euh, euh, ak ni ñu ko bindee di nga comprendre que au delà de Pastef mi ñuy mbuboo en réalité ñii seen bopp la ñu bëgg a amnistier. Mhm. wax nañ fi également ci yan circonstances la ñu ko defee puisque euh, yow. ministre bi nga xamante ne ni moom mooy chargé du dialogue social. boo demee bay wax waxu amnistie. Mhm. forcément il est interpellé au même titre que le ministre de la justice. Mhm. mun nañu wax xëy na que ministre de la justice bi nga xamante ni moo bind amnistie bi moom moo ko war a mën a gën a défendre. mais quand même bu ñu demee bay wax application am ki nga xamante ni moo yor dialogue social bi da ci intervenir. Mhm. kooku mën a taxaw ci euh, seen euh, dialogue bii ñu def bii passé ne moom d'accordul ci amnistie bi. ce qui veut effectivement que Macky Sall mi déposé euh, projet d'amnistie boobu waxtaanu ci ak ki nga xamante ni bu ñu demee ba di ko appliquer moom day dugg directement ci champ euh, euh, d'action muy le ministre du dialogue social. Mm-hmm. léegi au-delà de de de de de de forme boobu nga xamante ne nii wax naa ko ci ak li nga xamante ne nii mooy communication bi ci waa bennoo yi lal du ma wax sax gouvernement bi waa bennoo mm-hmm. bëgg gëmloo comme quoi. sénégalais yi que loi d'amnistie bi moom kenn lañ ko jagleel mooy ñenn lañ ko jagleel mooy Ousmane Sonko ak ay ñoñom que bu ñu ko voté ba promulgué ko ñoom dinañu mën a jotaat seeni euh, euh, droit dinañu mën a génnaat prison hmm. mais dans tous les cas man li ma gëm mooy te moo lay gëna woon ne sax ñoom loi d'amnistie bi seen bopp lañ ko jagleel euh, li la koy woon mooy ñii nga xamante nii ñëpp jàppoon nañ leen bu yàggul dara ci ay affaire de euh, euh, yii fi Moustapha Diop doon cité sànq ak Georges Nessa ba ñu demee ci tribunal ba dañ leen relaxé purement et simplement. Mhm. ku mel ne Diop Taïf. tey mhm. sànq maa ngi benn vidéo bu mu def ba mu tëj nañ ko 11 mois mu dem taxaw juge bi ne ko defuloo dara. man gëm naa ne ñu bëri si ñu ñu jàpp fo bu ñu taxawee devant le juge forcément bu ñu demee ba di leen di arrêté ba di leen di condamné mooy ñi ñuy wax ne dañu jël ay cocktail molotov ñi ñuy wax ne dañu attaqué ay ay ay Auchan ak yooyu mais manifestation boo demee dëkk boo munti dem ci àdduna bi bu manifestation amee ba mu am débordement loolu moo fay xew France bu yàggul passé ça pas dire que nag dañuy ne nañu ñu yàq mais pour man ay circonstances mooy poussé ba ñu toll ci situation boo xamante ni ay yàq day am mais même bu dee loolu dafa am amul kenn koo xamante nii mën na jël yàqu yooyu méngale ko ak terrorisme moo tax ma jàpp ne député yi suñ bëggoon a logique ak ñoom seen bopp balaa ñu ne dañuy voter loi si pour effacer euh, faits yi nga xamante ni c'est lié au terrorisme ñu effa ñu ñu abrogé xaw ma abrogé xaw ma ñu euh, comment dire voter beneen loi boo xamante ni mooy teggi loi bi ñu voté woon en 2021 te mën a méngale opposant bu wàcc ci mbedd mi di euh, manifester ak un terroriste mm-hmm. foofu la yëpp déparé donc balaa ñu ne dañuy voté loi bi nga xamante ne nii euh, euh, comment dire moom mooy tax ñu effacer lépp mm-hmm. ñu dindi doo d'abord loi ba nga xamante ne nii moo tax ñooñu ñu leen di toppee fee yu yooyu mm-hmm. mu nekk euh, pour man logique boo xamante nii buñ ci toppoon du ñu ñëw fii maintenant par rapport ak euh, conseil constitutionnel ak <laughs> suñu ex président bi. <laughs> ex président. ah waaw l' ex président le président sortant. maak maam Birame dese na ko au moins deux trois semaines. <laughs> waaw xam nga xam mu wala quatre ah. Moustapha tey la tey la 7 mars. bu nekkoon ne dañoo voté woon le 25 février bii passé. xëy na tey nga xam kuy président. dëgg la wala au moins nañ ne ñaar ñii. kenn moo ci nekk président te bu boobaa. wax Macky Sall nu ñu koy woowee du ex président wala président sortant. waaw bu mu si bëgg rek na jël. mais dans tous les cas. li nga xamante ne ni euh, euh, moo xew euh, démb. te ma jàpp ne quelque part. Georges mu ngi wax comme quoi que ne conseil constitutionnel boo déggee nu muy waxee dafa mel ne conseil constitutionnel moo mujjee génnee dat alors que c' est le contraire. oui Sall moo réagir par rapport ak date bi conseil constitutionnel joxe. Mhm. parce que ñoom le 5 la rendre. effectivement public seen décision. Uh-huh. Macky Sall conseil des ministre bu mu nee de fixer na date élection yi c'était hier. conseil constitutionnel bërki démb avant ñun ñu koy jot c'est sûr que Macky jot na ko. très bien avant. public am na journal bu ko defoon une sax bërki démb. l'enquête enquête mango pour mm-hmm. dire que effectivement conseil constitutionnel moo njëkk jël décision. Mm-hmm. c'est parce que jël na décision. te nu mu ko nu mu waxee déci nu mu lay euh, laytaayee décision bi sax mais moo moo moo moo moo yéeme maanaam ñoom amuñu woon pour jël déci datu. Euh, élection yi mais gannaaw ki nga xamante ne nii moom moo ko war a jël. Mhm. dafa mel ni xamul lu ko war. <laughs> xamul lu ko war. maanaam ay obligation xamu ko. Mhm. moo tax ñoom ñu jël ko pour bañ vide juridique am. par substitution. par substitution. Mhm. pourquoi parce que bu nekkoon ne euh, Macky Sall topp nañ ko ci li ko neex. muy ne di woote fii ay dialogue ak ay candidats recalés ak ay pas. continuer di ñu tegal xam nga boobu ñu discuter ko kañ. Euh, euh, comment dire le 28 la ma le 27. oui mais Macky Sall ne conclusion yi la 4 la koy recevoir. comme si ñu doon def dialogue bi moom xam nga planète Mars la ñu nekk. <laughs> def foofu seen dialogue war koo yóbbante euh, conclusion yi fii. <laughs> comprendre loolu yëpp mu ko doon def pour tout simplement gagner du temps. <laughs> léegi bu gagné woon du temps nag ba ñu yegg au delà du 2 avril maanaam Sénégal day am vide juridique dootul am président. conseil constitutionnel ne moom. puisque ci ay prérogative am dafa daf ci bokk di réguler. maanaam di xool. Mhm. loo xamante ne nii bu naree tax ab institution di sooxee mhm. moom mu dindi ko. mu ne comme am na prérogative yooyu te mënul bàyyi Sénégal nekk ci état boo xamante ni du am njiit. mu ne moo tax mu jël décision boobu. Macky looloo tax mu réagir neen pro. jàpp 24 nag xale bu gedd xam nga <laughs> ñu ne la fii nga war a jaar nga ne dinaa fi jaar waaye <laughs> dinaa fi nii laa <laughs> jaar boobu la dem ëlbatiku fixé ñu. le 24 benn waa ji alkaati yi ramasoo ñu ne dugg jotee ñu dugal ko mu ne du toog alkaati yi dóor mu toog ba pare ne du waxtaan. jërëjëf waxtaan ah, demal rek <laughs> du ma wàcc lay mujjee. Cheikh Sida Samb mi ngi koy wax sànq voilà une loi boo xamante ni.